ma loolu kañ laa koy gëm mu leer ma ni lii nii def nga ko bu boobaa dinaa gëm ni kat lii nga wax nii c'est vraiment vrai mais tant que gisuma duma mën a gëm parce que jël nga fi décision revenir sa décision à multi reprises kon tey soo ñëwaatee dama naan kon da ngay defaat comme d'hab rek mais comme si yaa ko waxal sa bopp. tey dañ laa sonal defalul la nga lekk defalul la nga naan. jàmm moo nekk ci kër gi def lu ko neex sa doo ci wax yow ne yow ci kaw suuf dootoo am jàmm yow. mais Rose lan nga bëgg léegi. qu'est-ce que tax maama dem ñëw sama biir néeg di ma attaqué fu mu ko teg. mais yéen a ko seq. chef de quartier mu ni mën naa fi ni mën naa fi ni chef de ma. te yéen nee ngeen du ngeen juboo yéen nee ngeen jàmm bëggu ko yéen nee ngeen ay xat ngeen da di mbaw mbaw rek. ayca allez-y la balle est camp lu leen neex def leen. su ngeen mënee wër wër leen ndaraan ngeen jël ngeen bombardé kër gi ñëpp am jàmm. moo tax di nga yéex am jàmm. ñëpp am jàmm fekkee borom kër bu ñu wax rek nga daw. dañ naa ratatatatata day mel ni sama kawal bi dañ koy waxee lépp lay dégg nga ñëw fii di sagu ak di ndama xoolal ni nga mel benn góor bëgg naan sa ndoxu bakkan bi pour lan loolu est-ce que gis nga ñun ñi suñu jëkkër duñ ko may sax mu ñuy wax xam wala merde. rawatina du ñu daggal ay saaga wala muy jaar ak ñun ñu fenn yi loolu mooy sëy sëy ay saaga la sëy ay toroxal jigéen la jigéen nan ngay yóbboo fitam mu bëgg na si jàmm yow ñàkk nga fayda torop te bett nga ma yaakaaruma ne woon lii nii yow di ci biir néeg yow lan la lan fi jar lii dafa mel ne benn sëy moo am ci àdduna yow lañ ko jox soo la rëccee day mel ne nan bu toj jàppal nii bu la reyee day dem takk ji beneen jigéen teg ko sa wet yow ñu suuli ji la say doom perte góor jër na loolu ndax dafa sikk d'accord mais ñëw na sa kër nekk néegu xaritam di waxtaan ak xaritam mais tudd la taasu kon yow yaa ñaaw njort sa ñaaw njort bopp rek yow yaa am lenn looy xalaat ndax yaa ngi jàpp ni moog Rose fu ñaaroo rek ñi ngi ci sa der bi te or ko loolu amul amul fulla ci sa bopp kilifa nga doo xale bu ndaw moogum jëmm nga gis nga nit da ngay dinc sa bopp des fois dana nekk sa der sax nguñu nguñu mi ngañam ngañamee nga dëgg bal bi loolu mooy dignité mais lu ñor nga wax lu ñuurul nga wax bu xar yi mbeewee nga kaas boole ko rëy làmmiñ dal ngam bari wax changer sa comportement changer sa jikko parce que lii du àdduna bëri nga looy lijjanti bëri nga looy kaas bëri nga looy wax nit du mel noonu amal fu ci sa bopp man loolu laa lay wax euh, Nafi nag moo waaye di moo ñàkk fayda bay wër kër jàmbur bay wër di taxawaalu ba kenn di ko accès di ko am leen luñ koy wax mais man kilifaam kenn du def loolu dëgg la nag maag sa jëkkër ay xarit lan mais musuma ko yàpp te moom it musuma yàpp ku ci ne xam na fu muy yam sa moroom moom nag bu ñàkkee fayda wala mu waaye di waaye dem di wër ak di taxawaalu te war a ñëw gérer këram gi loolu moom la dangay dem nga wax ko ko bu ñëwti ci man naan ma nafi ne na ma lii lii ak lii ak lii ak lii yaa may dégg n'est-ce pas ñàkk fulla dégg naa li nga wax man man maa juum ndax ba may jógee sama kër di ñëw fii damaa jëfandikoo góor gu mag laa fi fekk damaa yaakaaroon ne kilifa gu responsable laa fi fekk mais ndekete ab bandi salte laa fi fekk ndax doon bandi salte ak ñàkk am responsable moo tax sa jabar di taxawaalu ñëw suñu kër def fa lam fa def ma ñëw ba si yow di la ko expliquer nga ma dangay am dignité dangay ñaaw njottu man su ma ñaawoon njottu ba élage ne day def caméra surveillance si kër gi dama naan ko waaw lu waay wax ci kër gi su ma toogee déglu ko mais dama ko ne déedéet kilifa du def yenn yi ndax kilifa war naa am lu ko ump ci biir këram kon bàyyi loolu jarul ko fi soo def ko ci buntu wala nga def sa gétt wala nga xool foo koy mais sa biir saal sa biir kër gi jarul fay nekk ndax lu nit ñi wax soo paree nga toog déglu ko kon man su ma ñaawoon jot wala ma bëgg lu nit ñi di wax ma ne man la ñuy waxal dama naan ko def ko su ko defee lu nit ñi toog waxtaanee ko ba pare ma leen déglu ko ba mu neex xam lu may wax. mais dama ne la waxal ci sa jabar su ñëwatee ca kër ga su munte fëgg ci néeg ba ba ndax man avant Rose man la fa daan fekk nga taxaw naan ay nangal sàngama amal dignité amal personnalité man awma personnalité naa mais yow ñaanu ma yàlla sama xarma ca kër ga mel na yow ndax yow baaxoo guddi baaxoo bëccëg yow xamoo àdduna yow sa àdduna yëpp. ma marem ma marem may marem non yow eh wuyu ma bul fàtte ne eh déglu yow yaa may déglu. yow yaay déglu non eh, wuyu ma. yow yaay déglu de. yaa ngi may dégg nga fekk la sa saal si. Eh. bu mu tax nga defee du la wax fii sama kër la yow may fii sama kër la. yow fii xaju ndoxaan man do wuyu ma doo ma band bare de su fekkee non danga may déglu. danga may déglu de sa làmmiñ ne barngalumaa bu danga may déglu laa la wax. voilà fii sama kër la. gis nga bu ma fekkee di am lenn loo may wax dama lay noq ba waxtaan la. yow yaa mën a est xam nga dangaa ñemewul dëgg si di ñëwee ci sa kër gii di la wax dëgg ngay toxoñ toxoñi waaw ndax dëgg kaani la kooku tibb mu toxoñu damaa ñëw di la wax ngay jéem a jaay làmmiñ bu rëy ay nangam sangam ak patati patata gis nga sa dóoraate boobu ak sa réewande googu dama koy jaay kiy jàll sa ginnaaw. ma Marème man jàll ma sa eh, ginnaaw ma sa yaa ngi bëgg a ëppal de fii sama kër la. gis nga soo ñëwee fii nii de am benn baat boo may jël dama lay noq ba waxtaan la te dërëm du ci dikk. yow yaa sa jëkkër ñëw ma teg ko ci soo ma noqee dootoo noq. déglu ma eh wax ji sax mi ngi bëgg a bari waaw yaa ngi may dégg gis nga soo am non eh soo amee looy wax nga dem nga waxoon na fi bu ñëwati ci man de am leen lu wax yow c'est parce que da nga manqué yow ak waaye di mënta weesu na fi jugee këram ñëw ba seen kër sans pour autant mu romb sa néeg di soo meloon ni nga waroon mel kon moom bu ñëwee day jaar sa néeg nuyu la da nga amul ful la bëri nga wax yow yow li ngay diggante bari na ñaaw nga njortu bëri nga wax xoola wax ji nii du kantaan nekk fii di benn benn lante ak du ma ko def. loolu élage nga koy def mi sa morom moom ngeen jàppee ko fii sama kër la jugal. jugal waaw jugal jugal laa la wax. jugal jugal eggaguñ ci loolu génn. may ma sama jàmm ak sa xabu tilim soxna si dem naa ko sa kër waaye léegi boo fekk day yor na melokaan melokaan boo xam ne na la ko yàlla loolu man de jàpp naa ni àddina jëm yu mel ne amul ci kaw suuf ñàkk ni teg ñàkk teggin koo xam ne foo ko natt rek weesu na ko te pourtant moom li muy ndax a yi dara àddina jëru pour man jàpp naa ne wujje bokk wërsëg la ba si mbor na si seen diggante ñoom ñaar te am naa yaakaar ne tamit lépp lu muy jëf war na ko mën a ak borom moom rawatina kii waru ko sa jàppee rak pour moom doom la ko war a jàppee waaye nag ñàkk ni tegi amul war ma doomu aadama xamul xamul ni ñu waxee ak morom doomu aadama sëriñ jaay loo ca wax rek am na loo ca bàyyi li ma gën a naqari mooy sama doom jàmm guddi mooy ko ba jëkk man nii di yaayam rek bu ma juumee ba dugg fa bu ne dama yàq baat bu ma rus wax rek amut baaxu guddi baaxu ba jëkk waaye nag damay sant yàlla bu baax ndax yàlla dafa maa boolewul ci goro yooyu nga xamante si nii dañuy dëkk di def lu bon liggéeyal ma duñ doo dof wala liggéeyal na diw na génn kër gi xalaatuma dem si man ndax damay seet sama draayir baax moom mais lu mu bon bon jëloon ma ko man de leen rek laa bëgg kër ga am jàmm sama doom am jàmm jëkkër am jàmm ak borom këram ndax hélas ko dafa nekk borom bu baax man mii di goroom rek amul lu ma du defal kon kooku su ma defee leneen fayu ma ko borom lu may sama doom jàmm ca kër ga rek may ko ko diggante ba jëkkëram rek loolu rek laa bëgg waaye bëgguma leneen du ñaaw. incha allah rabbi nañ la suñu borom rek yow dama lay sant bu baax di la gërëm ndax man façon client bu nekk ñëw la fi waaye wax ji nga wax tey de maa ngi doog dégg tey sama sama kër gi te nag nii rek mooy mooy waree fam moo xool diggante bu ñagas bu mu jëm war a taxaw xool ñaan ñaan ñu tàggal ko mu jëm leen a boole ndax loolu mooy war a fa ab jullit waaye nag soxna Rose moom bu mel nii rek tooñ jikko ji ma yor ni ji war nii moo gi moo gi nekk si kër gi benn lañ kon moom gàcce nga la ma yor Rose nag soxna su baax la te bu teel tamit te ku xam àddina la man dem naa ba yàgg sax jàppituma ko comme sëriñ ak ak ak ak ku fi ñëw di wut dañoo du naa danga dañoo bokk man ak moom ndax jëf jim jëf jëf jim jëf sama diggante man ak moom waaye ma ne seeree na rek du ma tàyyi du ma xàdd nag ay jaam rek la suñu loxo rek ñaan yàlla nag mooy dogal te mooy mooy na ñaan lépp lu ñuy sababu yàlla yàlla ñu si na yàlla nangu. nag maa ngi ñëw dem. Hmm. xam naa boo liggéey dinaa fi ñëw. waaw nga xam tuuti ndax man am na lu ko fàggaloon fii keroog xam naa boobu kii nga nga yóbbaale benn rek. incha allah incha allah xaar maa ngi la soxla woon sax mais mais occupé nekk ci ay lijjanti mënoo koo xam parce que yaa ngi accro ci sa téléphone bi taloo kenn euh, bu loolu weesoo. kër jàmbur gi ngay lambar lambaree. kër jàmbur ga. laa la wax. kër jàmbur la sang bi ah. yow lan moo tax nga gaaw làmmiñ dangaa xamagum la may wax ba ngay ubbeeku. man dama lay wax ne du kër jàmbur déglu ma ba ma pare dama ne la que rose gi ngay lambar lambe la laa bëgg mu arrêté loolu laa la wax. pour lan. xamoo pour lan. bu ma ko xamoon dinaa la ko laaj sànq. déggoo li ma la wax de te yow man dama seetlu fan yii sa dal ngaan gi nga jële pour lan. <laughs> dal dal ma ngaan nag sànq bi bàyyi yooyu. déglu ma laa la wax dama ne la nga dakkal fa sa tànk loolu laa la wax. xamoo ko mais man xam naa ko ah, déglu ma ba ma pare jaabante bi de gauche à droite yow booba tey ñoom dañ fee teg seen tànk yow mën nga ni chaque jour rek mais dans le sac rek yaay dem. si loo yëgul nag ñëw nañ fi c'est que nag yéen ñaar yéenay jiwoo rek. lijjantiwuma loolu lijjantiwuma ñëw nañ fi wala ñëwuma fi yow li ma la wax moom ngay def wala wala wala wala da ngay dem di appliquer seeni wax ñoom. non loo bëgg rek loolu laa bëgg. waaw nga def ko ndax moom mooy sa jàmm balaa nga ciy jële ay news te du yow xam nga ma n'est-ce ak yow yow borom kër nuñ mel nga de dama ne li ci man du ci yow li ci man du ci yow de sa tànk moom laa bëgg nga arrêté ko fa parce que ñoom non seulement naafiq nañ seen jikko justul. seytaane nante te dañuy jaxase bul ma ni mam benn bañ. des fois nag na nag yi jabar jàmm yu ngay wax loolu lépp nag xoolaatal li ngay wax sànq xam nga ma bëgguma di la far nag ci ay tooñ. waaw mais kii na fi la wala yow kañ laa daan wax nga ciy teg baat nga naan ma ay exagéré ak ay wax nga dakkal fa sa tànk mooy sa jàmm de te du yow ci ma ko ne te du xam nga ma bu baax déglu ma du yow xam nga ma. yow xamoo leen mais man mi fay dem xam naa leen te li ci man du ci yow su ma fa demee El moom fa yóbbu bañ na ko bu ma leen rombee damay mel ne sax ku romb miir yi parce que li jëntiwuma leen sama soxla moom fa yóbbu mais yow laa bëgg nga arrêté fa sa tànk loolu laa la wax du n'est-ce leer na sa bopp bi. mais dégg nga ma wala déggoo bi dégg naa la waaye tamit doo bàyyi sa yooxu yi dëkkandoo yi ñoom ñuy dégg chaque jour nag la yow ngay yooxu ba fu ma génn ñu may laaj yow sa jëkkër ji la. doo ba doo bàyyi loolu te arrêté man boo gisee lu tax ma wax la loolu sang bi c'est parce que ñoom ñoo fii ñëw yow ak jëkkëram ay xarit ngeen si ku ne xam na ni yéen ñaar seen relation nu ñu mel ci dëkk bi yéen ñaar yéen a ngi ànd ànd bu rafet ngeen di demalante yéen a dikkalante xanaa kay yow li li nga doon ñaan yàlla kay am na man te ma dem bay dugalante ak ay jabaram nga ñëwante jabar. ñoom sa wax bëri na li ngay wax bari na trop ngay mel ne kuy tari nii. tariw dama lay wax luy am. dama ne la uyu ma wax ji lu may mën de dama ñëw fii nii pour aisé wu doo ma sonn la wax ju bari wala nga jóg aju ca kaw dégg nga ma. waaw ah, ma àgg sa. waaw déggal li ma la wax rek. yow da ngaa ay manière nag na mën a ala. xawuma la de. yaa la. te la ma ne woon. <laughs> du bàyyi loolu tout à ma lay ma ñàkkal kees. amul lu tax. lan lay neexal xeetu neexal bu ne loo bëgg subaa ngoon maa ngi ciy dox. ko ah, kon yaa ngi neexal nii. démb xanaa gisoon na ma la defar. gisuma ko. <laughs> seetlu naa nag yéen xale yu góor léegi na ngeen am ay per ay per lu raar sax laay wax dem di lijjanti ay kenn xam ay përëm. waaye gisoo ma. bi. sang bi koy waxal. sang bi koy waxal. eh dama yow koy waxal. yow yow sëñ naa toog ak yow nii ngay wuy téléphone sànni. na fi xanaa da ngaa gëj a ñam pes moo tax lan moo ci seen ci ku may waxal. sànni dama eh tuuti. ngay exagéré nan ma kan ngay waxal lan moo ci seen sama appel yow. yow laay waxal lu seen sama appel. Eh, que ça soit la première la dernière fois nga may laaj ko may waxal de. imbécile yëfut eh li ma la wax. waaw jeex na waaw man maa doon laaj léegi laajatuma la sang bi maa doon laaj léegi laajatuma la allez jeex na génn ci li nga ne xool ma fii maa ngi sama xarit xarit ah xoolu jabaram. <laughs> nee nga bu ma demati ko ne élage du fa demati. mooy sa jàmm waaw man nee naa loo bëgg rek loolu laa bëgg. du ma fa demati du ma fa sax tëddee net xool boo wàccee ci kër gi muy bëgg di ma fi fekk fi laay di dina defaral yu baax. ok c'est bon waaw mi ngi noonu nag mu yaa sama xarit. lan moo tax bi ngay dem sa kër yaay tàggu ah du loolu nag du loolu. bëggoon taxaw rek bëggoon naa laa wax mais dangaa génn na ngaa génn dem. ma woo la jotuma la ma woowaat la nga nekk à communication ma ne xaaral kon ma daw gaaw ñëwaat avant ngay kii te yow sax nag añ waxante dëgg sama ñoom yaay nee na gëj nañ fa loolu lu waral lool gëj nga fa de nee mais jot moo amul rek mënuma chaque jour chaque jour chaque jour rek di dem mais yow war nga leen a mën a wax ni leen aw ma jot parce que yow gisoo ni man sax aw ma sa temps fan yii. sang bi nag ça fait des mois mère nee na ñëwoo fan. même bu fekkee at la sax aw ma jot da nga gis ma toog fan yëpp. sa goro bu la may jabar. et après may jabar may jabar la mais temps bu fekkee amul temps amul mu leen a bàyyi di jël les choses di ko di ko compliquer. xam nga na ngay gis yow man may gëj dem sa kër yaay na nga koy gis. sa yaay man bu ma toggee yóbbulu ko fóot bu jotee ma dem jëli yére mi fóot ko lu mu bëgg suba ngoon maa ngi ciy taxaw ni nga amee sa yaay man ma koy toppatoo noonu man tamit noonu laa amee ay waajur sang bi yow tamit. Nafi. des fois di jaar des fois. Nafi. aw ma jot bu may lambar lambaree yow boo talee lambar lambaree yaa ko tal mais man talluma ko parce que aw ma jot li ma la wax dafa leerul. kon da ngaa gis ni damay lambar lambaree nii. fi nañ close wax ji waaye dégg nga ah, parce que yow da nga bëri wax tellement que yow. Ah, bësuma sama tànk yi wallaaw bësuma sama tànk yi. <laughs> xanaa keneen nga ma jaawale teggil teggil lii eh yow du ma sa morom de. yaa ngi may dégg noo eh déggal li ma doon dégg nga ma n'est-ce pas ngay teg ay tànk mel ne buur. bu ma la tegu sama eh, déggal li ma que ça soit la première la dernière fois nga may teg ay tànk de. ne bëggoon naa laa wax benn affaire fan yépp nag man la koy waaj a wax mais sama xel moo si génn Paco Paco bëgg naa nga wax ak moom keroog ñëw fii woo ma may yaakaar ne Paco lu ne lu ne lu ne la may wax Paco na daf may conseil te man dafa xamul ne man nawloo ma ko sax nag man nan ma waaw fonk leen seen jëkkër bàyyi leen coow bi nangam sàngam sàngam yow dal wax yoo xam ne xoolal amul bopp amul génn amul commencement amul fin dara dara ak gémmiñam ko tooy googu man ni ma ko jéppee su xamul keroog bi muy wax xool ko sax bugguma ko te moom daa xamul sax moom bu xamoon boppam man man man sax man lan la ma war a wax boobu nga xam te ne moom foo ko fekk mu ngi dóor jabaram ji di saaga di yuuxu fuyee jabaram ba ñu yóbbu ko hôpital yaa ngi koy fàttaliku dem yóbbu band loxoom bi yow pakku kan la mën a taxaw nana defal lii man góor gu baax mooy taxaw di ma wax lu ma mën a dégg mais góor goo xam ne yow nit ñi liggéey seen jabar di leen dóore ay or di leen dóore ay compte banque ay téléphone yu cher ay oto yu rafet ay terrain moom daal ku fay ak ceinture war naa am jabar ju mel ne man su amoon jabar ju mel ni man bu liiree balaa muy yegsi bu fa ànd cuuraay nekkee wala bang wala kuur rof su ma ko ko tëggee